liste bu ama seen bokk na ci ñi koy rol ñëw fekk si la mu ne loolu lépp intéressé wu ko ndax wàllu pëlub teen la ku ñëw ci buntu ba ngay yem est-ce que Balla dafa jàpp ne que combat bi dafa diis ci moom ba war a tax mu war a mën a wuti ndimbal feneen aywa waaw xam nga ku xam Balla Gaye numéro 2 pourtant am na benn mbër bu mag bu taxaw ñëpp taxaw ne mu ne am na ku muy supporté pourtant kenn ngaangul ku nekk yaa moom sa xol yaa xam koo ci dugal nga dugal ko ci am na loo xamante ne nag duma ci débat am naa staff am naa encadrement li ma gëm man incha duma ko bu bëree ma daan loolu laa gëm Aliou Ngouye Diagne maa koy sant baa ko gërëm ak Omar Youm ak ma dikke ñaa bu baax a baax ma ngi koy sant bu baax ak ma sàmba ñaa Balla Balla combat bi heure bu ñu waxee nga ni Modou Lo su xeexee ma duma ko su bëree ma daan ko ci mystique nga ko teg am ëpp ko doole nga ko teg am dangaa xam yoon wi xam nga nit moom da ngay ñaan rek da ngay sabab moom mais yàlla moo yor ndam mystique moom ñëpp koy def mais li gën a am importance mooy nga liggéey ba taxaw gëm sa bopp xam li nga liggéey xam nga li nga capable ak loo capable teguma ko li ma liggéey di ñaan yàlla yàlla may ndam di gërëm suma frère suma xarit Ama Baldé maa te ko gërëm képp kuy sërif nekk Sénégal nekk njabootu na sax Sadou maa ngi lay sant di la gërëm bu baax di sant ñaan di gërëm Mbaye Diop Moussa Faye Diop Talla Meng Modou Fall ak Simon bi nga xamante ne ñoo ngi may jàppale ak suñu père Mbaw bi taxaw voilà ba tey ñu ngi ci question yenn ci ay journaliste ñun ñu si daan en direct. leewtoo.com fan yee ci face à bi ngeen def monument de la renaissance dañoo gis nga xam ne nii mooy Modou Lo nga taxaw mu taxaw mu door la épaule nga xaw a terteri nit ñu bëri yaakaar ni mu def la ëpp doole. des mooy nee nga ko ñu xeex 15 minutes te moo ne yow gëmoo lool da naxaate ndax bu loolu amee yow doo ci génn ndax bi mu la dóoree doole ba tax nga ter teri wala xeex ko li muy wax est-ce que dëgg la. non Modou ci ëpp doole Modou Lo mënu ëpp doole ci àdduna incha allah jamais de la vie dama liggéey ba xam ne damaa liggéey xam nga nit di taxaw man boo yow mi kii sax mënuñu ma bàyyi sama yaram amul problème loolu la mais moom moo la gën a xam ne li ma koy wax rek ay supporters am ñoo ma yëpp mais moom ma xeex bi ngay wax Modou Lo mënul xeex Modou Lo mënul xeex te li ma xam naa bu xeexee moom du ma ko bëre ma daal Modou Lo mënul xeex Babacar Modou Lo xeex Modou Lo mënu xeex bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan man ay champion du monde ñoo ma yor France laa demoon moom Espagne la demoon man ay champion du monde ñoo ma yoroon coupe du monde bii passé kan moo ko jël du France man man ay champion du monde ñoo ma yoroon waaw Balla ñoo lay nuyu. Boucar Ndour la Lutte waaw ñu gis ne waaw ñu gis ne tout le temps yow daa mel ni da ngay vanté mu mel ni sa adversaire mu mel ni sa adversaire tout le temps rek yow da ngay da ngay mel ni yow yaa ko ëpp lépp yow est nekkul na yow excès de confiance mën na laa induire en erreur si combat bii ni nga jublu. waaw non confiance moom bépp moo bëree bëree ba léegi ñëpp xam ne Balla Gaye de mel. ma mënti bëral dama lay respecté damay doxal ambiance wane ne samay supporter maa ngi fi parce que liggéey naa lu tax ma xappi liggéey naa lu tax ma toog di ree liggéey naa ma tax sama supporter yi gëm kon nag dama gëm sama bopp mais képp ku may bëral dama lay respecté jox la cër bi nga moom ci ñun di gërëm Thiat Seck ak Adama Ngom franchement ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant stade amitié bi nga fay mujjee bëre daanoo sa adversaire toogoo ci kawam saa maak adversaire ñoo ci bokk yam musul ndam am ndam stade amitié man tamit c'est la même chose mais allah bi ndam dina am te nag maa ngi lancé benn appel bu am solo ñun ay mbër lañu ay noble lañu suñuy supporter ay noble lañu parcelle la jëm te nag fair play dafa am ay jour dañu ne fa ay milliards. loo xamante ne tey mën nañoo fay ñun ñett ba ñaar te kuñ si gagné da ngay dem nank atul ak sa morom képp ki nga xamante mooy doomu Géejawaay maa ngi leen di lancé du ñu xuloo bu ñu xeex nañu supporter seen mbir bëre yàlla may ko ndam mais nag Géejawaay ragal dëgg fi pour te dire boo gisee moom rek pour lépp ci fair la lañ ko teg même tuuti yaa ngi kon nag maa ngi lancé appel. waa Ngaye maa leen gërëm marsa sam fu ma juddoo fu ma yoroo waa Farba waa Géejawaay waa Nateer waa Fitni waa Laas waa Gideye waa Jaxaay képp kuy balla balla yi maa leen di woo ci bis bi Balla Gaye kii nga ëw maa leen di woo di bëgg di bëgg yëpp te waa Gof ma yoroo di ñaan nag yàlla ñu yàlla may ndam yàlla ñu